asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi woon fii ci seen télévision Kifne TV di leen indil tey sunu thème bi nga xam ne moom la ñuy jagleel jigéen ñi nga xam ne bu ñu dañuy defar ba mu baax mais bu ñu amee dañuy daal dee ci ñi ak jigéen ñi loolu indi sama cameraman boo paree topp ma ma ànd ak yow ci sama gaay ci biir. waaw asalaamaaleykum waat rek ñu ngi waat fii ci seen télévision Kifne TV sëñ bi tey ñu ngi ñëwoon fii di la laaj ci seen fin d'année bi koy dundee ci wàllu bi préparation ak jeextalu at bi noo ko gisee. waaw fin bi moom neex na lool su ñun mois. ndax euh, ñu ngi jaay bu baax sax euh, client yaa ngi ñëw xanaa yenn saa nag ñu am ci ay jafe-jafe waa mairie sonal ñu fi lool sax waaye ñu ngi sant daal neex na lool noonu neex na lool man boog neex na si man. yow daal yaa ngi sant. maa ngi sant waaw. baax a baax a baax waaw léegi yow sëñ bi ma lay laaj rek ah dafa am xale góor yoo xam ne euh, ñoom bu ñu amagul jabar. dañuy sañse defar ba mu baax par rapport que buñu amé jabar lool si la nga ko gisee daal nu mu démé non euh ah man dé ma am jabar ma ñak am jabar laa yemale nit mom ala ko alin daa wara bëgg bopam nit mom nga am jabar ak nga ñak am jabar am jabar di sañse bañ am jabar baña a tamit mom daanaka perte mala rek ndax mom mom loko ko mom sa bop nga ko defal waaw ndax mom su matone du jugé kër ndayam ak bayam di ñew di di sey sa kër kon loo ko mën a defal rek boppam sa bopp nga ko defal loolu daal laa doon wax. kon baax na kon sëñ bi moom ni mu ko gisee rafet na ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal tamit euh, nga yokk ba ko ci at bu bees bi. soxna si ñu lay laaj rek tey ñëwoon fii Kër Massar di laaj benn interview pour xale jigéen ñi nga xam ne bu ñu amagul jëkkër dañuy defar ba mu baax bu ñu amee jëkkër bàyyeeku yow loolu soxna si lan nga ci xam. ah man moom luy sama xalaat loolu moom warul moom jigéen moom tout le temps da war a defar nga am jëkkër ñàkk mais doo bàyyeeku sa jëkkër tamit mun na xoolaat si xale yu bees du dëgg jigéen moom da nga war defu tout le temps mais doo bàyyeeku loolu moom warul moom contre naa ko moom. yow en tant que jigéen daal contre nga lool mais loo xam ci xale yu góor tamit même chose dégg naa ñoom dañuy def comme noonu bu ñu amagul amagul jabar dañuy sañse def ba mu baax mais ñoom it bu ñu amee jabar rek bàyyeeku ci jabar ji la wala ci moom ku góor ki habitutam la. non parfois nag si góor ki lay nekk mais doo amee jabar nii normalement du fekkee yow. comme sa doo doo tàmm solu noonu doo amee jabar normal war na la changer si lu bëri du dëgg yow tamit du ko defee nga gën a yokk mais yow tamit doo takk jabar rek bàyyeeku loolu moo war moom. waaw loolu tamit dëgg la mais loo gisee fin d'année bi. ah fin bi ah, ñun moom yaa ma gën a xam ñun moom ah, gis nga prép ñun daal <laughs> fin d'année baa ngi nii daal. yaa ngi ci jot xaalis wala jotagoo xaalis fin d'année. ah non non man moom sama liggéey laa toppatoo wàcc ñibbi naa. mais yaa ngi koy wàcc. non non waaju ma ko moom. at bu bees la rek ñu ngi jëm ci 2020 ku ne war nga kaa mën a feet. waaw ah, loolu dëgg la mën nga ko feet ak sa famille rek loolu dara newu si. kon baax nañu jàllaat ci keneen rek ñoo ngi lay jaajëfal bu baax. fii rek seen euh, télévision Kifne TV ñuy laaj sunu yaay ji yaay dañu indi woon benn thème di laaj xale jigéen ñi nga xam ne amaguñu jëkkër dañuy defar ba mu bu ñu amee jëkkër rek daa dee bàyyeeku ñu lay laaj nag loolu lool nga ci gis ak loo ci xam. waaw ah, loolu doy na day loolu doy loolu baaxul. nit moom avant ngay am jëkkër li nga doon def boo amee daa war a yokk mais warut a wàññeeku loolu nag mooy tas sëy na xale yi bu avant ñoo am jëkkër dañuy jaagari jaagari def ay feem ba nga takk leen boo leen takkee ñu génne beneen façon jukko loolu rek mooy tas sëy. ci xale yu góor yi wax ak ci xale yu jigéen ñi est que am na ci xale góor yi. ah xale yu góor yi moom bëgg nañoo yor xale jigéen ñi ñooy xaw a doy waa di font. loolu rek nga gis xale yi bëgg nañoo jabar waaye xam nga soxna boo ko yoree te du la toppatoo doo la cuuraay du la lijjant tas ga day dal day day yomb ñu lay laajaat tamit gisee fin d'année bi. Ah, fin d'année bi neex rek sant yàlla dugg nañ ci bisimilah rahmaani génn ci alhamdulilah di ñaan at bi ñu jëm dàq bi ñu jóge rek. yàlla baax na noonu gisee yéen seen njaay mi ndax mu ngi dox ci at bu bees bi yéen gis client yi ak yooyu yéen nan ngeen gis ci loolu. Ah, njaay bi moo ngi dox ndànk ndànk nag njaay bi moom mi ngi dox ndànk ñoo ngi sant yàlla daal di ci ñamtu suñu wërsëg di bëgg rek ñuy ñaan waa maire bi ñu bàyyi ñu fii ñu toog. ndax soxla woo leen ay cantine ak yooyu dugal non soxla nañ ay cantine kay suñu amee cantine moo ñu gënal mais buñ ko amul tamit toog fii di dàq suñu wërsëg rek ci marché bi. suñu yaay ji ñu ngi koy jëfal ñu jàllaat suñu beneen rek di bu baax a baax. salaamaaleykum sama papa nuyu naa di la ziar. salaam ñu ngi lay fay. waa yaa ngi am jàmm waaw ñu ngi am baax. waa tey dañ fi ñëw rek indi leen benn tem ci xale jigéen ñi nga xam ne bu ñu amagul jëkkër dañuy def ba mu baax bu ñu amee jëkkër bàyyeeku ñu lay laaj loolu ana lan mooy sa xalaat. waaw loolu moom baaxul moom lu gën daal nit ki boo amagul jëkkër lu ngay def nga def ko nga continuer ko. li ngay solo nga solo pour sa jëkke parce que loolu solo parce que ala kulli haray moy nek li nga war li nga war def rek ba mu amul jëkkër sax li nga don def bi nga amul jëkkër bo amé jëkkër lu nga war di continuer def pour sa jëkke contane xolam sedd ci yow parce que lool moy lu gën parce que yalla daf ñu diggal pour ñuy topoto suñu suñu ku ci am jëkke nga di ko bu baax ba xolam sedd ci yow wa lool dal moy lo xamanteni ni eh, warna jigen bo xamanteni day sey wa ñun tamit ñu lay laaj rek ndax dañuy gis tamit amna na goor góor bu ñu amagul jabar dañuy defar mu baax ñoom di sañsé mais buñu amé jabar des fois dañuy bayé ko ñu lay laaj ndax ci ku jigen ki la wala si ku góor ki la non mëna baña nek ci ku jigen ki sax parce que am na xamanteni xam lu ñu tal moy dépense dal xam bu féké la euh bu amugul jabar mëna nek sa défaro mais bu xasse am jabar limay xalaat moy ni mi def pour euh, euh, njabotam jox leen pour ñu dund jox leen pour ñu pour pour pour ñu mëna solo ak jang xalé yoy lool mëna ko empêcher ba nga xamanteni du tal lu dul dem di euh, dem di euh ut loo xamante da kay jox pour njabotam lool mëna ko empêcher pour mu baña solo waaw Lol mom deug la ñu lay laaj rant rek tay ci fin d'année bi nan nga dundé fin d'année bi rek at bu bes bi no ci duggé waaw fête bi de moom xanaa pour euh, ah xana at bu bes mom xana ñun fête bi moom du suñu fête ñun ay julli leen mais xana at bu bes bi di ñaanal yalla ñep at bu ñu genn bu naré euh, bu at bu ñu dugg mu mu gëna neex bu ñu genn dal. yalla def jamm Sénégal parce que jamm ci lepp lépp xaj lay ñaanal bu baax yow di la jaajeufal di kontan ci yow di la jaajeufal bu baax. ok jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ma la sant ma gërëm gërëm leen. Ah, ñu ngi lay jaajëfal bu baax tey nag dañ la indi woon benn interview di la laaj euh, lan nga xam ci xale jigéen ñi nga xam ne bu ñu ama amagul jëkkër dañuy defar ba mu baax mais bu ñu amee jëkkër dañuy bàyyeeku lan nga ci gis waaw loolu dëgg xam nga léegi instant bi léegi xale jigéen yi nu mel ni moo moo tey moo tane sax xale góor yi léegi xale jigéen yi yëpp da xale jigéen yi dañuy baax kat dañuy sant xale jigéen yi gërëm xale jigéen yi xanam jigéen yi toujours instant bi amul kii amul kii war na jóg liggéey kari dañi ñaan yalla instant bi esa bu bes la euh, vingt année dañuy jaxal li 2019 dañi dugg 2020 yalla yalla def la affaire bu baax ñu dugg bu bëgg affaire bu sant ñu gërëm waaw ah, ma lay jaajëf est ce ma mën ko waxal ci tukuleur waaw mun naa wax sa pulaar asalaamaaleykum bandiraɓe haala purraɓe ore esa hande esa bu na den 2019 en jeeya en 2019 o 2020 ah, yalla hokkan taweɗo saaha mo wuuri kadi en bettanimen gussay ah, toujours année année ɓuuri année ɓuuri année goɗɗo o inchallah bo fet année merci beaucoup ma lay jaajëfal ñi woon fii seen rond point Kër Massar indiloo leen seen émission waxtaan bi góor ñi ak jigéen ñi ci wàllu solo bi ci wàllu defaru bi ak toogaayu kër ak seen fin d'année bi di leen ñaanal di daje ba beneen yoon di sant gërëm sama caméraman Baara maa ngi lay sant di la gërëm macha allah di ñaan nag at bu bés bi yàlla defal ñu ci jàmm yokku ba yëkk saawaan xéewal gu yaatu leen wax nag ñuy dox daje ba beneen yoon ci indi leen beneen émission incha allah di jaajëfal ñëpp.